مرادي وكب من أنكر باعترادي براني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات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 liggéeyal na Serigne Touba waaye Serigne Touba jox na ko lool kenn ku ci ne murid bu ne war nga cee mën a jariñu njariñ loolee la ñuy sàkku si fii ci ci ci barab bii ndax barab bi moom mata na lépp la ca dolliku mooy xam gu ñu xam ni bis bi wax na ci lool ku fi ku fanaan fi soo am nga xëy ramalaam sa aju yëpp faju na loola it ñoo ko fiy sàkku si di ko taataan te ñaan yàlla jullit yëpp am ko bi seex Cheikh na Amadou Khadim mu doon bisam njëriñal lépp koo xamante bi bii murit saadeex la wan na ñëpp yoon wi bokk ak sëñ bi li mu ko bokk moom ba pare wëlbati ko lépp dafa doon ab taalibe doon doonam doonam am maam Cheikh Antam maam Cheikh daal doo juum képp koo xamante ni bi yaa ngi roy ci magi murit yu baax yi yooyu noonu da am jàmm fii da am fañ jëm te ku tedd rek ne na jàmm gisul lu ko gën fii ak fañ jëm ñaanal ñëpp waa Sénégal ak monde bi yëpp ñaan suñu réew mi yàlla def fi jàmm lépp luñ fi ñaan rek ñu bokkook ñëpp booloom jullit yëpp daal ah jàmbaar la naan jëfe ndigal bàyyi tere moom lool ci lool la nekk ba suñu borom def li mu def moo tax mu am lii tey. li mu li mu li mu li mu li mu joxe ci ay addiya di ko yóbbu fu ne mu bu ne war na koo roy loolu rek ndax ñun addiya rek la ñuy joxe addiya Touba li Abdul Muridin Saadixin loo lahuma bi xidmatin aw bi hubbin aw adiyaati addiya jooju nag mooy suñu mooy moom lañ rawee ñëpp ñun ca moom des ko ci roy ndax lu ne defal na ko ci defal na ko ci Sëñ Touba di ko di ko yóbbu ba fa mu ne di koy fekk kon ah, roy ko ah, ah, maanaam bisam dikk ci li si gën a am njariñ ñu mën ko cee xool ku ne dégg na ni bi sëriñ bi wàcc see ci réew mii moom la jëkkawoo waaye waaye loolu kay doy na sëkk ndam loolu kay doy na sëkk day na dal na damal kuy daaru salaam ak kuy murit gi ko sëñ Tuubaa bàyyee daal bàyyee ko moom daal lañ bëggoon a ñëw barkeelu si euh, ndax euh, am nañ euh, maam maam Seex Anta day koo xam day koo xam ne dafa liggéeyal sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa gërëm ko dafal ko xéwal xéwal goo xamante ne kajul ci àdduna àllaaxira lépp la ko jox tawféex la ko defal moo tax yée yéene nag ñu jël si ci xéwal gi rek ñu barkeelu si ci darajey borom Tuubaa ak Cheikh Ibra te ñaanal maam Cheikh Anta yal na ko sëñ Tuubaa defal jàmm defal ko sutura baax a baax ndax borom Tuubaa bi mu jógee ci géej gi bi mu dikkee maanaam maam Cheikh moom moo ko dalal defal defal ko xew moom defal ko lu kawe lu kawe njot xéwal googee nag moom la fi murid yëpp di dabu si fa surtum oxsitan bila ixlaali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 Eh, tey nag daa mel ni fii ci Daaru Salaam lañu suñu borom tabaaraka wa taala maanaam eh, teewal te maanaam te ci kanamu jànkati xaside alxuraan yi. Daaru Salaam nag dëkk boo doon dëkk boo xam ne sëñ Tuubaa ci boppam moo ko sañcoon jox ko maam Seex Anta la yàlla waxoon ci alxuraan wallaahu yad'u ilaa daari salaam. wa yahdi man yashaa kon mel na loolu wax jooju tey moom feeñ na bu baax a baax ak loolee sëñ waxoon ne daani ila daari salaam ba ci mujjug woy gi ak itam ijal salaamatan tudumu yaa salaam li yewalil iyaa fii daari salaam nga xam ne fii penc maa ngi fees del wax dëgg yàlla ci siyaarekat yi jànkati alxuraan yi nga xam ne juróomi fan yëpp ñu ngi fi di fi yendu di jàng alxuraan kaamil yu limoo limoo yoo xam ne wax dëgg yàlla macha allah aduna gépp war nañu am xam ne sëñ Tuubaa moom la mu waxoon rek ila yaqaadallahu maalam yakunu wala yakunu abadan li mumkini suñu borom may na ma loo xam ne maanaam dootu ko may kenn waxoon na it bésub teyam dafay euh, euh, gàcceel bu demb ba euh, kon daal wax dëgg yàlla ci gàttal daal alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax tey julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te itam di ñaanal Serigne Cheikh Abou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Daaru ak képp koo xam ne set la ci aju ci maam seex ant suñu borom yàggal ko fi yàggal leen fi di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi te wër moom set na xol lool wax alquranul karim euh, doomi aadama bi dafa mënta dund ci lu moom ndax it innahu la kitaabun azim la yati al baatilu loolee suñu borom waxoon waaye tey de wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne sëñ Tuubaa moom lu mu wax rek loola rekee am macha allah teñ fi yaa ngi fees dell jànkati alquran xasida yi ñëpp di siyaare dëkk bu tedd bi di Daaru Salaam sëñ Tuubaa waxoon ne man du euh, fi na fiiha daxalal janna bi xayri hisaabin képp kuñ fi rob rek suñu borom dina la euh, dugal àjjana ci lu dul kon loolu Sëñ Tuubaa waxoon kenn wérantoo ko bisub tey euh, alhamdulilah rabil alamin ñoo ngi sant yàlla bu baax kàddu yi gàtt yi nag dañ ne woon nañ ko ci sànni rek ngir bésub tey ji kenn ku ne wax dëgg yàlla amel nañ jukkeel ci waxal Sëñ Tuubaa ndax sëñ bi moom ala kulli xaalin nun dañoo amul lu moom te itam la mu waxoon rek ne sa borom moom jagleel na ne sa sakarto is xasani bi xidmatil sanni sa borom moom a jagleel boo jagleel boo xam ne damaa war a liggéeyal yonent bi salaa salaam te liggéeyal na ko liggéey boo xam ne kenn mosu ko def kenn mosu ko gis sëñ bi bëgg lu dul boromam nabiyul Mustafa xeyrul wara ak xaradi fii kulli sayin wa ma abahu yabahu euh, salaa salaam mooy ki nga xam ne mooy gën ci mbindeef lépp lu ko bañ rek euh, bañ naa loola euh, yonent bi jox ko léppam suñ borom jox ko léppam ba bés ni ki tey lii di am fii ci Daaru Salaam macha allah sant nañu yàlla bu baax sant sëñ Tuubaa yal na ko suñ borom fayal yal nañu ko suñ borom fayal yal nañ ko suñ borom fayal ñu delee góorgóorlu waat baax nag ndax xam ne sëñ Tuubaa moom ku ci aju rek da nga war a lu doon ab ab taneef doon foo mën a nekk rek rek xam ne buñ la ne jàkk rek xam ne moo kii moom bu ne Sëñ Tuubaa rek kenn du ko wérante xillun wa hibbun wa bi ukallamu raditu anhu wa huwa anni radi wa kaana li bil amni fi agradi waajahani aljamilu ni'ma bi jamil wali siwa maxtaaru lilamin nafa allazi lam yardani wa sadara sirri wa aybi wa mabi aadi sara biraazu man baarazani biraazu man yubaarisul muntaqimal baari saman biraazu man baarasani biraazu man yubaarisul muntaqimal baari saman iza talabtu min ilaahi jalaba وإن صرفت بي إلهي سلبا